al ibaadatu wal yàlla ak liggéeyal lislaam waaw waa sëñ xaban docteur Ndiaye Diop Ndaamaatu euh, ci waxtaan yi doon wax rek ci wàllu wér-gu-yaram surtout ci wàllu prévention li wax fagaru euh, démb dañ ci doon waxtaan mais ma ne xaaral ma def ci benn euh, kii bu xaw a gën a yaatu tuuti ndax euh, wàllu prévention dafa nekk domaine bu xaw a yaatu ci santé ndax booy xool mooy lépp loo xam ni mu ngi jëm ci jëf ak taxawaay boo xam ni danga koy def pour fexe ba feebar bañ laa dal pour fexe ba nga bañ a am gaañu wala fexe ba nga gën a ñoŋal sa wàllu wér-gu-yaram donc loolu yaatu na lool te bu ñuy seet ci pàcc prévention dañ ci koy séddale ci ñett muy prévention primaire moom la ñu gën a xam ci fagaru mooy koo xam ni dara jotu la ngay fexe ba mu bañ a feebar beneen bi ñuy wax prévention secondaire mooy artu koo xam ni Euh, dafa nekk ci foo xam ni mën na caa jële feebar wala nekk ci loo xam ni mën na caa jële feebar muy ci wàllu liggéeyukaayam wala mu ci wàllu dundam ndax euh, ci walla dundinam euh, wala mu nekk ci comme koo xam ni mi na tey kuy naan sàngara wala ku doon tox rek te lépp yooyu yëpp ngay def xam nga ni feebar mën na caa juddoo wala ku topp bakkanam ba nga xam ni am yaram mën na cee jële feebar yooyu ci la ñuy wax ci wàllu prévention secondaire beneen bi nag muy prévention euh, ñetteelu prévention mooy ñetteelu pàcc bi mooy lay wax euh, prévention tertiaire mooy faju mooy li ñu ëpp ñun ci li ñuy gis moo waral hôpitaux yeeg poste de santé yeeg lépp lu jëm ci wàllu faju loolu mën nañ ko bañ a tuddee sax prévention mais dafa fekk ni ku feebar euh, fokk nga faju pour feebar ba dañ wala nga wàññi ko wala nga arrêté ko loolu nag moom la ñu ëpp lu ñuy gis mais daanaka mën nga ni moo gën a moins efficace ndax lu hôpitaux yi bare bare ak lu kii yi bare bare du tax feebar jeex ndax xas na am ba pare donc boo xoolee prévention primaire maanaam fagaru moom moo gën ci prévention moo gën a efficace wante moom la ñu gën a euh, néewal moom la ñu gën a ñàkkal solo te pourtant moo gën a efficace mu ñuy wax ci prévention aussi dafa xaw yaatu ndax prévention boo ko jëlee mën nga ni euh, jiitu na juddu nit ki walla bu dee da nga koy jëm ci wàllu nit ndax euh, boo gisee ñu naan euh, bilan prénuptial ci tubaab mooy nit ñi bala ñuy sëy ñu saytu leen ba xam ndax ñoom ñaar war nañoo sëy walla am na jàngoro yoo xam ne bu ñu sëyee mën naa dem ci seeni doom wala ñoom ci seen bopp war nañ koo wàllante mën nañ koo wàllante loolu dafa jiitu sëy euh, donc prévention dina topp nit ki avant sëy dina topp nit ki tam bu nekkee ci biiru yaayam ñu koy saytu di ko saytu ndax xam loo xam ne bu ko amee war nga nii nga war a def nii nga war a def ba muy judd ñu koy ba mu juddoo ñu koy toppatoo di ko ñàkk yi mu war a def yi mu war a am bë di ko aar ci yenn jàngoor yi nga xam dafay wàllante ak yenn yi nga xam ne am na ko ñu war ko mën a faj dina ko topp ñun prévention bi ñu gën a soxal ci suñu wàll nii ñuy waxtaan ci suñu groupe bi daanaka da nga naan euh, ci ñi nga concerné directement dama ci ñëw ci pàcc boo xam ne dama naan prévention boo demee bay am waaru cinquante ans ci sa juróom fukki at euh, nan nga war a doxale pour que prévention bi gën a ñoŋ ci foofu ki am juróom fukki at dafay toll ci digg dooleem tamit ndax euh, xëy na dootul gone wante tamit dootu mag moom mais euh, dina laaj ci foofu bu fa nit tollee euh, ginnaaw bi jëkk ci prévention mooy état des lieux mooy xool yow mii fan nga toll sa à sa wàllu wér-gu-yaram naka la demee te loolu pour nga xam ko li ci jiitu mooy def sa bilan bilan nag boo koy wax da nga naan damay dem seeti docteur docteur boo xam ni li ci gën mooy généralist boo demee ni ko ah man kat dama ñëwoon pour seet sama yaram sinon at yi nga am mun la waaw bu la seetee examiner la jëlee la sa tension ausculter la déglu xol bi déglu euh, dënn bi làmb yaram bi dina ne la ah fii de gisuma fi dara loo xam ni euh, jaarul yoon walla dara bu tàmbalee ci loolu dina la seetal âge boobu parce que cinquante ans bi laa jël rek à peu près dina la defal bilan sanguin bu ñu nee bilan sanguin mooy xool sa deret bilan <clears throat> sanguin boobu dafa am solo ndax euh, ki am cinquante ans euh, laaj na xool deretam boo xoolee deretam am na ci euh, feebar yoo xam ni mën nañ ko gis ci deret yoo xam ni ci saasa te li ci ëpp mooy dina la defal bilan rénal mooy xool rein yi ndax mi ngi fonctionne normal amul gàllankoor defal la bilan foie ndax xool ndax foie bi amul benn problème bu dee ci ñenn jigéen ñi âge boobu mën nañu xoolaale thyroïde bi ndax da leen di faral di indil ay jafe-jafe ndax seen situation de stress yenn yeeg ak âge boobu ci jigéen la ëppee daal mais du ñëpp bu ñu paree ci bilan sanguin boobu souvent dañu la demander bilan cardiaque du ñëpp moo ko soxla mais am na ci ñoo xam ne bu leen médecin généraliste bi seetee ba gis ni seen xol wala dara dégg na ci lu yëngatu lu jaarul yoon wala ni seen bind wala seen antécédent c'est-à-dire mooy say jaar-jaar ak sa yenn kii mën na laa demander bilan cardiaque boo xam ni mën na koo gën a pousser ba yegg ci yenn examen yu gën a sophistiqué mais bu xoolee dara nekku ci mën na ni la euh, doy na foofu jarul egg ci lu gën a sore mais bu ñu jógee ci bilan cardiaque bi tamit baax na bu dee côté cinquante ans nga def bilan li ñu naan bilan prostate parce que appareil prostate la organe la boo xam tam laaj na ñu saytu ko te loolu li ci ëpp ci saytu ba mooy li ñu tuddee toucher rectal nga xam ni baaraam bi ñuy dugal ci ginnaaw pour làmb ko ndax daj ko ndax normal na wala dajoo ci dara la ci jaaxal sinon ñu def tamit li ñuy tuddee PSA benn analyse deret la boo xam ni dañuy xool benn marqueur boo xam ni bu prostate bi feebaree daf ciy feeñ ce qui fait que loolu boo ko seetee lépp normal nga ni ko ah normal na léegi bu fa jógee moom mën nay def chaque at wala chaque six mois wala même bu ko doon def deux ans tam dina xam ni ba ma mujjee def bilan daal alhamdulilah donc bu déparee ca bilan boobu dina xam li mu man ak li mu tëli ak la fa nekk lu mu war a defaraat ak lu mu ki war a euh, surveiller mais bu fa jógee itam dina ko permettre ni man kat mën naay def léegi activité physique c'est-à-dire euh, activité physique moom dooni rek euh, at bi am naa ko mënatuma ko déedéet ku dara jotul at yoo am teewul mën ngaa def euh, activité physique xëy na doo mën à partir de cinquante ans nga jéem a def sport pour nekk ceinture noire de karaté kooku moom sëñ xabaan lu mu aay aay xëy na dina jafe nga def ko ceinture noire karaté wante nag mën na caa lu yeneen sport wala sax karaate lu mu mën di doon ba am ca daal loo xam dina ko mën a tax defar yaramam donc foofu ki def visite bañ ne la apt nga kooku mun na commencé def sport bu dee waaxu ba ca daw ba ca sport yi combat yëpp mën na ko def ndax dara gaaran kooku ko ci yaramam beneen bi ci des mooy aussi visite bi dina la permettre ñu jàngal la tamit sa hygiène de vie ndax commencé na ci bëñ yu baax ndax tamit euh, sàmmoonteeg bëñ yu baax mooy def hygiène ba nga xam ni doo am ay caries ba ñiy màgget ñu koy buddi parce que ku amul bëñ euh, sa lekk du jaar yoon te bu boobaa sa wér-gu-yaram dina des euh, bu jógee ci wér-gu-yaramu bëñ yi wér-gu-yaramu yaram bi ci boppam aussi di ko maintenir mu jëm ca lekk ba ak ca comportement yi tamit dina ci baax ndax dañ la bul ëppal ci suukar bul ëppal ci xorom bul ëppal ci dëwlin te loolu defe naa ni que am jëm juróom fukki at war na ko gën a mën a saytu ndax foofu xëy na ni am na lu bëri loo xam ci àdduna am na lu bëri tamit loo am ci moyen yoo xam ni mën a permettre nga xaw a euh, nga nga gën a euh, sàmmonteeg sa dundin ba nga xam ni yenn excès yi ak yenn yu ëpp yi euh, dootoo ci caar donc bu ñu gisee ni ñuy wax ci wàllu prévention yaatu na yaatu goo xam ni kenn mënul matal lépp wante lu bon bon loolu moom boo sàmmoon sàmmoonteeg moom yàlla mun na la dimbali ci yenn feebar yu sew yi ak tamit liñ naan fagaru bala muy yegg si fekk dem nga ci sa docteur te docteur bi li ci gën mooy nga am sa médecin boo xam ni bu dee même bu doon par at sax wala par six mois di nga dem di ko seet si di ko seeti mu lay nemmeeku bu gisee dara loo xam ne gisu ko woon ñu teel ko mën a faj wala teel cee mën a jóg ba du egg fa mu waroon egg euh, loolu daal laa ni woon xam naa nañ ci waxtaan tey asalaamaaleykum wa rahmatullah bu amee yeneen question wala bi ci demee ba mu jar ko ñu duggaat ci yeneen domaine prévention yi nga xam ni boo jëm ci euh, wàllu njaboot gi ak euh, wàllu xale yi surtout asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah docteur Ndiaye Diop Ndamatou waaw sëñ Xabane gis na question yi ñu doon wax ci wàllu prévention ba ñenn ñi laajte ndax euh, analyse yi dafa cher wala dafa kii xëy na euh, wàllu santé affaire cheraay bi moom euh, li tubaab di wax rek la santé n'a pas de prix wante la santé en coût cest à euh, santé mënul nekk gratuité cent pour cent nit ku bëgg wér-gu-yaram di nga def dara euh, seetlu nañ nag Sénégal am na enquête bu ñu mës a def di xool euh, lan la Sénégalais bi nangoo dépensé ci wér-gu-yaramam mais enquêteurs yi dañu gis ni Sénégalais deux pour cent ci am-amam Sénégalais yi lañuy dugal ci seen wàllu wér-gu-yaram wante. fukk ak ñaar dinañ ko dépenser ci seen wàllu solu solu yére solu kii nañ ci dépenser douze pour cent wante seen wér-gu-yaram deux pour cent la euh, benn journaliste daan ni <coughs> kon de sénégalais bi de daa bëgg buy dee solo ba rafet même buy dee daal na jekk moo ko gënal euh, muy dund te euh, bañ a sol yére yu baax donc nga gis ni wàllu santé du question wu euh, santé dafa seer mais santé dañ ci nanguwul def la ca war euh, buy ne prévention tey jii euh, dem consultation mooy li jiitu te ki nekk ci poste de santé dem seeti infirmier bi amul benn post de santé booy fay 1000 francs consultation bu dee ku jege hôpital dem hôpital amul benn hôpital boo xam ni Euh, dépassé na trois mille ba cinq mille francs pour consultation te ki wér dem di consulter ji san ne veut pas dire que dañ koy bindal ay analyse yu mu war a def wala dara benn minimum la yoo xam ni maanaam ci sa am-am la toll te tey jii euh, CMU yi liñ naan mutuelle de santé yi euh, nekk na ci Sénégal wër na gox yëpp publicité dañ ko wax nañ ko fu nekk ma ba léegi da ngay gis koo xam ne day toog ba feebar ak dem hôpital daal ni voilà dafa seer alors que ki nga xam ne dafa inscrire woon ci mutuelle yi liñ la ciy laaj amul solo torop nga inscrire inscrire sa njaboot boo demee hôpital mun nga ni bu doon téeméer ah, nga ni ñaar fukk ngay fay foo waroon fay ñaari junni fay fa deux mille francs foo waroon fay euh, cinquante mille nga fay fa dix mille francs loolu quand même jàppal ni la donc euh, wàllu cher moom man mënatuma koo dégg ci wàllu santé te à côté di nga gis koo xam ni léegi mu dem ci maaman ba mu ni ko yow de da nga yooyu rab wala danga nga nàngam da ngay tuurlu da ngay dugg fii dugg na fële ni ko déjà weexal ba mu dépensé fa cinquante mille retourné mu ni ko da ngay rey xar wala nag wala dara quarante mille la nangam nangam te dina ko def wante nag bu dee hôpital la moom euh, faju ba moom euh, bala ngay faju ngay commencé jooy te yàlla xam na ni actuellement nii ndimbal li ci am waxatuma ñi nga xam ne dépassé nañu 60 ans am seen sésame euh, dama ni sax ñi am na foo xam ne ci sésame bi ndimbal li ñu am sax ka nekk ci réewu tubaab yi amu ko donc kon mënatuma nangu wàllu dafa seer da nga naan kay dama organisé wul ki organisé wul moom mën naa seer ci moom ndax day jóg-jóg dem bëgg a faju te euh, wàllu prévention dama ne bu doon téeméeri nit ñaar fukk yi feebar dem hôpital euh, juróom-ñett fukk yi dara jotu leen mais ñu dem ñu seetal leen seen yaram buñ ko doon def bu yàggee dinga nga ni téeméeri yu dem xëy na euh, fukk yee ñooy feebar mais quatre vingt dara du leen jot bu ñu demaatoon ba ca kanam di nga dem ba ni téeméer bu ñëw di faju si euh, nga ni juróom yi ñoo cay nekk ku feebar euh, juróom-ñeent fukk yaag juróom euh, dara du leen jot ndax lu nit ñi gën di nammeeku seen yaram di gën a éviter feebar di ko gën a gaaw a bala muy wala dara loo xam ne si yàlla na bala muy nekk feebar donc loolu mooy prévention cherul bu fekkee ni jóg nga ci teel nga dem ndax prévention commencé nañ dem rek ñu seetal la analyse yi bu ko jaree la léeg-léeg du ko jar mais bu ko jaree analyse yi ngay dem tam demewul noonu ndax euh, euh, ki nga jël ñu jëlal ko deretam xoolal ko foam xoolal koy reyam lépp lépp lépp boo ko dajale du passé vingt cinq mille francs vingt cinq mille francs ki nga xam ne dafa bokk ci mutuelle kon cinq mille francs la cay fay donc kooku kon nga xam ni seerul mais ki organisé wul nag euh, xamul nu muy doxale kooku mën na jàpp ne dafa seer mais ki organisé quand même euh, bokk ci mutuelle boole ci njabootam 6 euh, mois yu nekk wala 1 mois yu ko mu def mu def analyse yi loolu du seer ci moom donc. ci ñi doon laajte ci wàllu prévention ndax dafa cher dafa cher loolu laa amoon ci lu ma ci dolli ci tontu daal mais nit ñi quand war nañuy gën a góorlu ci fagaru bi parce que cherul te moo gën a noppal ñëpp noppal kiy faj noppal kiy faju noppal société bi noppal état bi noppal ñëpp ndax ci la ñuy dépenser moins que ki feebar ndax ki feebar moom fokk mu faju mu bëgg ko mu bañ ko bu ko mënul sax mbokk yaay dajale di ko faj bu ko mënul état ba social ñëpp di ci jàpp dëkkandoo yaa ñëpp donc fokk xaalis génn mais ki mënal boppam ànd ak kàttanam dem dara jotu ko kooku lam cay dépensé kës néew souvent moom dina ko mënal boppam donc euh, ni ñuy xam ni prévention cherul souvent feebar moo cher donc nañu dina a góorgóorlu ci prévention bi asalaamaaleykum wa rahmatullah di ñaanal ñëpp jàmm ak wér